yooyu doy na waar. ñun réew mi nag vraiment tooñ tam am na de. mooy yéen. deuxième tës bi mhm. en tout cas ab kilifa daal lañ ci tudd. Mhm. waaw. kilifa gi tudd waaye daal. ñun sax bàyyiwuñ tur wi. Mantoulaye mhm. dimbali ma. mbirum sàcc la noonu. benn borom boutique la. waaw. dafa am doomu kilifa gu mag ku sàcc deux cent cinquante millions kër papam bi ko papa ji jàppee. mu dem ni daf ci jox borom boutique bi soixante millions. jàpp nag borom boutique bi caxat caxatee caxat caxatee bu metti mhm. tudd na ci nag ay tur ba ci takk der yi ko jàppoon tudd na ci tur boo xam ne daanaka bu ñëpp xam na. police boobu moom sii woon na fi moom. torop police boobu ay mbirum dóor sax nag faf. Mhm. ci boobu noonu. lu lu raw dóor kay. waaw wax nga dëgg waaw. borom boutique boobu noonu. borom ba waaw. te moom gisul tinu. moom nee na gisul tinu. xanaa doomu kilifa gi xaritam la. doomu kilifa gi euh, client wam la daan bi di jënd. moom nag depuis boobu ba tey nag dañoo jël otoom gaare ko ci parkingu kilifa ba. ne amul sañ-sañu jël oto ba. Eh plus ah kilifa gi doomam moo sàcc xaalisam. léegi ana doom ji. kilifa gi dafa jël doom yëpp ci oto yóbbu. léegi moom moom nag ñu nangu bàyyi xaritu doom bi ak moom ci oto bi policier yóbbu leen. Ah! Dakar ba Thiès. te kilifa gi doomam moo sàccoon xaalisam deux cent cinquante millions. ah waaw ndax moom doom jee ànd doom ji di ko woon kër yi ñu mu jox xaalis bi ñu ko woon ñooñu di génne. Euh, mais mais doom mais doom ji moo ñëw wax ko ne ko bi dama ko cee jox. waaw. ah ah ah la nag léegi borom bitig bi moom moo ñëw. moom moo ñëw moom ci boppam. Euh, Sumer. jox ñu borom bitig bi. d'accord gannaaw la mooy problème. bon man mille 2017 dama ubbi woon benn boutique sama koñ. terkale di jaay boutique alimentation. bi ma commencé. daanaka waa koñ bi yëpp ñëw di jënd ci man ma dawal un an benn doomu grand frère grand frère bu ñu wax doomam bu tudd ñëw sama boutique jox ma vingt mille na ma tons kii sama xaalisu école la dama ko fi bëgg bàyyi chaque fois bu may dem école ñëw jël dara mu bàyyi ko fa chaque jour muy ñëw di jël bu léeg bu wàccee ngoon si ñëw jël ay boissons ay pain corned-beef affaire yooyu mu jël jël ba benn instant ma xalaat ni li ma joxoon war na jeex ma calculer mu mu mat ëpp 500 francs ma ne ko yaa ma yoreel cent mu joxaat ma beneen 20 000 continuer di jël di jël di jël di jël ba benn instant ma calculer mu mat fa sëkk bi mu fa matee ma ne ko jeex na mu ne ma léegi jox ma su ma jotaatee xaalis dinaa ñëw déposer def dépo ma jox ko bi ma ko joxee di ko jox di ko jox ba benn instant. sentir gisandi booy bi ñëwatul ci ko boutique bi quoi ma calculer mu mat vingt sept mille cinq cent pendant un mois may wër booy bi gisuma ko mais ci biir un mois bi noonu comme ñoo bokk koñ may dégg benn rumeur ñu ne dafa sàcc deux seen kër taw ñu koy wër pendant un mois kenn gisu ma toog ba vingt huit décembre benn vendredi xëy di dem sama boutique di liggéey ni ma génnee sama kër rek dajeeg benn Ford bu noir bu gaare sama bundu ma génn rek nit lem sama main gauche ko ci ginnaaw dóor bi quoi ne ma c'est la ubbi oto bi ne ma dugal ma dugg bi ma duggee ma gis toog ci biir oto bi quoi ak beneen policier ci kanam ak ñaar ak keneen ci kii dawal ma dugg toog ñu tëj oto bi ne ma c'est la police ne ma ndax xam nga booy bi man leen xam naa ko fii la dëkk ni ma naan fii la dëkk papaam doom bi di génn ci kër gi di ñëw bi mu ñëwee ba ci kanamu oto bi mu taxaw ci kanamu oto bi mu taxawee ci kanamu oto bi policier bi ne ma grand booy bi xaalis bi mu la jox nañ bëgg nga génn ko mën nga xaalis lan ne na ko vingt millions rek mu dóor ma tell dañ bëgg nga nangam tàndaayam génn xaalis boppam dóor ma crochet tell ne ma dañ bëgg nga nangam tàndaayam génn xaalis wala ñu rey la man la tey di ngeen ma rey mais xaalis bi fu génn kii il ma droit vingt sept mille cinq cent ñu dóoraat ma tell di ma dóor pour ñoom waruma wax waaw lu ñu wax rek waruma wax déedéet quoi lu ñu wax rek waaw maa ngi takkoon benn sakos ñu ubbi sama kalp sakos jël ko ak soixante mille francs yu ci nekkoon ak beneen Samsung J6 plus ñu jël ko jël sama caabi oto ne ma foo dëkk mën leen fii ñu la police may ci biir néeg bi papa xale bi taxaw ci ñu fa gisuñu fa bi morceau bu weex bi ñuy lal doog a teg yére yi mu yëkkati morceau bi fekk fa trois mille francs mu jël ko ne ma yow da dul génn xaalis man leen kiy joxuma xaalis mu ubbi bunt bi ne paa bi wàccal ci suuf nga xaar ñu paa bi wàcc suuf suuf ñu paree ñu génn ma néeg bi dugalaat ma ci biir oto bi moom policier bi tourné laaj fu diw dëkk mu cité benn tourné ko diw fan la dëkk mu ne ko mi ngi dëkk fii ci suuf bi ñu demee kër diw boobu ñu yéeg policier bi na salaamaaleykum ani diw mu ne ko dafa génn jabar ji ne ko dafa génn mu ne ko jox ñu numéro téléphone mu jox ko numéro téléphone am mu ne ko nga ko dafa am mu jox bi mu waxee loolu ne ko mu coupé bi mu ne ko mu mu ne may ko 10 millions mu ne ko ah bon mu ne ko waaw mu coupé mu dem taxaw na le moom policier bi jël téléphone woowaat gaayan bi wax ak moom lu yàgg bi mu wax ak moom lu yàgg mu ñëw coupé téléphone bi wàcce ñu dugalaat ñu ci biir oto bi ba pare mu ne waat fan la diw dëkk benn benn booy bi muy àndal mu ne ko fu mu dëkk mu ne ko kooku ñoo bokk koñ bi ñu demee ba buntu kër kooku diw moom bi ñu taxawee buntu këram booy bi di génn rek gis ñu rek di di ci biir kër gi policier bi wàcc interpellé ko ci biir kër gi taxaw ak moom foofu wax ak moom lu yàgg bi mu wax ak moom lu yàgg après mu ànd ak booy bi dem ay 15 minutes mu ñëw bi mu ñëwee mu ngi yor benn sacoche bu marron bu toll nii quoi ko gis di xam ne lii kii joxuma xaalis ñu dooraat ma tël xaalis bi du génn man leen joxuma xaalis ñu ne booy bi yow fan la yi mu ne ko ana yeneen cinq millions yi mu ne ko dama ci jënd ay uskuteur noos ci mu ne ko fu uskuteur yi ne mu ne ko mi ngi en face sami municipal papa xale bi taalaat otom jiitu suñu oto bi ñu dugaloon ñun topp ci sama oto baatu fourgonnette topp ci ñi dem ba ginnaaw CTO benn hangar paa bi dépôt bu nekk foofu paa bi wàcc gardien bi ubbi oto ubbi bunt yi quoi oto yëpp dugg duggee jël sama fourgonnette gaare ko nële après policier bi woo papa xale bi ñu taxaw ne papa xale bi ñu taxaw ne wax lu yàgg bi ñu waxee lu yàgg papa xale bi ci boppam moom ñu ubbi oto bi jàpp nii ci mbaggu doomam wàcce ko jël ko dugal ko ci biir otom taal otom génn dem man ak beneen boy bi copain boy bi ñu jàppandoo woon ñu bi bu nekk ci suuf pont bu woon foofu benn Kia Optima bu bleu bi ñëwee ba foofu man ak booy bi ñu dugalee beneen policier bi nga xam ne moo doon dawal sama oto bi jël Ford bi ñuy doon xam ne ñoom lañ indi def opération bi jël yoonu ville dem sans plaque amul matricule ñu dugal ñu ci biir Kia Optima bu bleu bi ak policier bi doon dawal ak beneen policier bi ñu jël yoonu péage di dem di dem romb Pikine Guédiawaye benn instant ma commencé jaaxle quoi man ko oh, chef fan nga ñu mu ne ma yow dañ bëgg nga mu gaara ci benn bayaal bi mu gaara ci benn bayaal moom policier mu def nii téléphone tag composé benn numéro bi mu composé benn numéro automatiquement dafa composé bi rek coupé mu coupé rek kooku ko bi ko mu ne ko allo mu ne ko waaw policier boobu ñu fi doon jiiñ ne moo amoon problème bi te indi ko fii kooku moo ñëwoon defar def ci opération bi moo ñu jàppoon yóbbu ñu ba Thiès bi mu ko nee maha mu ne ko waaw monsieur le député mu ne ko ani mu ne ko ñu ma coupé automatiquement ñii dañ ma bëgg yëpp mënuñu protéger seen doom bi dugg seen kër sàcc seen xaalis bëgg sànq ay doomu jàmbur ubbi kalpem ni yëkkati cinq mille francs jox ñu nañu paas leen ngeen ñibbi su ma paree enquête bi dinaa leen woowaat ñu génn jël jakarta bi ñu jëlee jakarta comme yoruma woon benn téléphone ma abbu jakarta mayen bi téléphone quoi ne ko abal ma ma woo sama waa gàlle quoi sama yaay war na jaaxal ba ma woowee maire bi automatiquement ne ma ma ne ko maire waaw man de maa ngi nii Thiès maa ngi ñibbisi mu ne ma Thiès ma ne ko waaw mu ne ma man dañ ma jaay benn iPhone Thiès mais iPhone bi yow yaa ko mujj utiliser quoi Facebook kon ma ne ko foo jëlee sama numéro mu ne ma dama gis ci suufu Facebook bi noonu ñi bind sa numéro quoi waaw ku la ko jaay mu ne ma waaw man ne ko benn gaay mu def rastamaan nii te xees mu ne ma waaw ma ne ko léegi la bëggoon mu ne ma compte kii bi laa bëggoon kii quoi ay claw bi ma coupé waa ji ma xëy dem tribunal porté plainte bi ma porté plainte ñu jël dossier bi envoyé ko central pour ñu def enquête centrale woon nañ ma septembre 2019 entendre ma quatre heures ba dix heures ci guddi numéro mention yaa ngi nii bu njëkk bi moo nekk nii gis nga plainte 32 14 26 février 2019 soit transmise 22 44 2019 du 9 avril 2019 commissariat central SU lii ay réclamation la dama jaabante tribunal ba sonn ñoom entendre nañ leen ak doomam woon nañ leen ba entendre leen mais dossier bi mënul fexe ba jugee central pour dellu tribunal jaabante naa fu ne dugg naa fa fu ne dugg bi ma ci doxee dox dox ba sonn am benn kilifa bu ñu ma booleel tribunal ma dem mu woo commissaire bi nga xamante ni moo yor dossier bi mu woo ko ne ko i toppatool ko dossier bi quoi ma ñëw bi ma ñëwee ci moom commissaire bi dugal ma nu mu demee ma expliqué la expliqué ko lii ma la expliqué yëpp mu ne ma est la man ko am na ay témoins ma nekk am na ay témoins man ak booy bi ñu jàppandoo woon yóbbu ba Thiès mi ngi fi mu ne ma naa ko indil booy bi ak sama benn nijaay boo xam ne fekkee woon na fee bi ak sama beneen copain ma jël deuxième bu ñuy defaat ñu déglu ma ma waxaat la même chose booy bi jël parole copin booy bi jël parole wax mu ne kii du ci dara booy bi moom la woo quatre heures du matin ci ginnaaw taatu fenêtre mu sànni ko ñaari saaku vingt cinq kilos bi ñu demee almadi compte ko compte xaalis bi mu nekk deux cent cinquante millions est ce yaa may dégg ma jugee ci loolu ñu ne ma léegi demal toog nga déglu ma dégluwaat lii nii dernière euh, entendre bi mois de janvier la woon 8 janvier première bi euh, septembre 2019 la woon ma ñëwaat toog di jaabante tribunal fu ne ma dem fa saa ma demee bërki bi ma ñu jee dafa ne ma carrément demal nga toog pareeguñu ci enquête moo gën fu nekk nga dugg fa waaw ki ki ki nga xamante ni moo yor enquête bi nag muy yàlla jéem na ci lu ne lu ne jéem na ko ci mais xam naa ne mënu ci dara. yow da jàpp ne euh, maanaam ñi ngay ñi ngay doon xeexal ñoo am doole ñoo ci teg seen loxo. ñoo ci teg seen loxo effectivement ñoo ci teg seen loxo ñoo ñu doon xeexal du kenn ku dul. moom moo teg sama loxo ci sama dossier. man na xamal lan laa bëgg. sama alal laa soxla parce que maa ko moom samay këyit oto ngi nii. ok yow léegi bi ñu ñëwee sa kër li ñu jëloon sa kër foofu noonu. xaalis bi ñu jëloon sa kër. ak sa oto. Euh, loolu yëpp ba léegi jotoo ci dara. jotuma ci dara valeur 8 millions 500. 3 humide buy jar six laa amoon ma teg ci cinq cent jël trois ci man iPhone buy jar quatre cent mille ak sama téléphone jabar buy jar cent mille jël ko ba léegi ñu ngi ko sama oto mi ngi fii ginnaaw Sétiwoo ñu gaare këyit yaa ngi nii. oto bi yow dem nga ba gis ko. te commencé na yàqu li tax ma ñëw fii nag dama ñëw ci loxo police bu nekkoon ci loxo yoon damay toog ci loxo civil la nekk ba léegi may naa leen trois jours fii vendredi sama oto bu ñu ko defarul jox ma ko weekend bi dinaa dem jëli sama oto te lu mu lu lu fa am rek ñi xam ne ñoom ñoo ko parce que dañ ma jaay doole oto bi nekkul ci civil nekkul police. ci civil la nekk ok yéen même même gars bi ñuy def descente sa kër. Euh, ñoom est ce que am na lu ñu la wan loo xamante ne di nga xam ne ñii ay policiers. ñu ma dara déggoo li ma la wax dama génn sama kër rek ñu paquet ma dóor ma mën a dugal ci biir oto bi ne ma c'est la police du mandat du dara amul dara luñ ma wan ak li ñu doon torturer yëpp. dara wanuñu ma dara jusqu'à présent. te boo leen euh, yow benn gaañan bi nga ci xàmmee que ne kooku noonu policier la kooku rek nañ ko. moom moo ma doon dóor mënoo te ba Thiès ma 5000 francs demal demal ñibbi. maag booy bi ñu jàppandoon mi ngi fii Derklé. yaa may dégg léegi sama oto leen fii ak 3 ñu defarul sama oto jox ma weekend bii fii ak vendredi bu ma jot sama oto weekend bi. dinaa lu mu jur ñu xam ne ñoom ñoo ko def. parce que ñoom du ñu ay policier du ñu ay dara ay centre citoyen euh, kii nañu nañu comme man civil nañu comme man moo yor sama oto gaare ko nekkul ci police ma continuer toog sama dossier ba keroog procureur di ñu woo di ñu atte mais sama oto moom dootuma ko bàyyi ak ñoom parce que dama ko soxla 60 000 francs la ma doon may par jour oto boobu 2018 ba léegi ñu ngi ko téye d'accord kon yow yaa ngi saisir sax procureur bi pour mu euh, euh, woot woo leen ngeen atte ñu atte dossier atte vraiment lii laa bëgg maa ngi woote loolu quoi procureur mi nga xamante ni moom ñun la fi nekkal mënuma fayul sama bopp keroog bi ma jógee Thiès mënoon naa dem attaquer leen mais dëkk bi dafa am yoon ma jaar ci yoon vingt millions mënuñu la ko jox ñi jàpp la yóbbu la ba Thiès jox la mille francs ne la dërëmal ñibbi wax bu dofee ka koy déglu na nekk nit booy bi moo sàcc seen xaalis génn pasar pasare ko ñañ ko jox fekk nañ ci ñoom xaalis man mille francs nañ fekk ci man sama xaalisu boutique la samay preuve ngi nii oto yi ma yor yépp kayit yi ma bandaalay am oto ba yaa ngi kii de jar dellu si suba de. lii de alaaj yomb na trop jar naa dellu si suba nag. lii ah. yomb na trop trop trop. kii nag kii nag abido doole nag alaaji. <laughs> man alaaji police bi tudd na turam. <laughs> tudd na turu euh, euh, euh, autorité bi. Mhm. tudd na turu doomu autorité bi ak rakk autorité bi ak. fa dëkk ah. yëpp lépp mantulaay moo ko moo ko dagg. ñoom ñëpp seen tur la la la seen tur autorité. Ah ku ne ci dossier bi kay tudd na la ñëpp autorité la. kii li muy wax lu mu xam la bu mag autorité bi APR la bokk sax faf mu gën a leer. doom ji sàccoon fi deux cent cinquante millions loolu sa juróom na fi coow. ñëpp ko yëgoon. mais mais moom. mais moom mii tamit moom ay mbokkam. moom pare moom sax dafa mel ni ku xam lu parce que mi ngi naan oto bi bu doon police moo ko immobiliser téye ko wala gendarmerie. du am sañ-sañ dem jëli ko. parce que policier dañ ko dawal waaw dañ ko dawal ba ci parking waa ji foofu noonu angaaram ñu ko fa. bi muy wax loolu donc la. loolu laa ni mante la policier ñoom ñoo ko yóbbu. jàppee mu jëkkul nekk yoon. parce que amul benn alaaji alaaji doo ko doo ko doo ci mën dara. waaw ci mën dara ah, ah, doo la non fu ñu la yóbbu la dugal ci oto yóbbu la ci beneen yóbbu la sa kër. waaw loolu moo dul yoon. police bi la déplacé Thiès ba Dakar. déjà mooy nekkul yoon. non non moom Dakar lañu ko jàppee. waaw moom laa la wax yóbbu ko këram vérifié ama loolu loolu. ba tey loolu ci procédure ba léegi police su Thiès sañu te jàpp si ki ne Dakar. waaw loolu tamit wax la bu amul ordre bu tax mu jàpp si. waaw policier bi ñu ci tudd policier bi ñu ci tudd mooy policier bu siiw ba. kii woon ca coow la mooy policier bi bi ñu ci doon ci coowal Jakarta ya. waaw ah. ok. ah waaw parce que dëkk laa ba xale ba deewuloo. Ah, dafa dee ah, waaw moo tax affaire yooyu moo tax man la il s'est laissé faire dafa dee woon de. dafa dee woon de yoon. yoon mais mais alaay xam nga lu mu doon daw moom it. moom mii itam mënoon naa fipp ci kaw gaa yi dee. waaw dee góoma de. mais après policier boobu ci boppam nee na moo ko jox 5000 ne ko ñii mënuñu protéger seen doom ba pare. yéen ñaar yëpp xam nga waa dafa jël doomam yëpp a ñooñ na leen yóbbu mais ñooñ ba nekkee foofu daf ne leen daf ba mu ko woowee wax ak moom ba pare autorité bi daf ne ko du ah, ma nit ñi non c'est que mais ki sàcc kay comme que nee nga ko ciix waaw koy gis nga sa sàcc dama yaakaar seen objectif du du woon pour tëj nit ñi parce que xam nga bu tëjee mën a dem tollé. non jaay doole la jaay nit ñi à ce ñu génnee xaalis bi. jaay doole parce que xaalis boobu tamit du lu ndaw 250 millions. faire waa ji. ah fu muy fay nag yéen déggoo xale boobu nee bañ bañ ko jàppee am 5 millions lañ fekk ci moom. ak ay scooter yu ñu naan moo mi wax nii. bu doon may moo gars yi bu ñu xëyoon gis nga musiba musiba la tudd semer le bordel moom la tudd comme dañu semer le bordel ci moom na dem non seulement jëlee otoom mais oto député ba laay jëkk xam fi mu gaare buntu këram mu ñu xëpp ci essence taal ko soog a dem fële. maa day taale ko def. waaw mën a tele ñëw sa kanamu jabar ni sa jabar dégage xajal ñu. Ah, dugg ci biir néeg bi saaga sa jabar jël téléphone sa jabar jël sa ñaari téléphone jël sa 300000. Ah. te yow député bi lay añ añee xam nañu doomam a sàcc. xaayu sa war ma de mooy loolu nag. xaayu sa war ma de alaaji mën tawee amul benn policier bu yoon may. nga jëfandikoo nit ñi jëfandikoo ci kaw waa ji amul te histoire bi nag xanaa waaj ji soo ñëw tasa bi ñe email yi gars yi yëgoon nañu ko xam nañu dëgg la xam nañu député bi day dof doflu teg boppam njuñ bi subaa naa tudd turu député bi ah, moom ba xam moo ñu moom wala doole moo fa dakk alaaji bàyyi leen boo nekkee soi-disant as député wala non non loolu dañ ko dañ ko yemaleel ñëpp dañu ne tous amul tudd tur di collaborer ak way takk der yi saa boo amee kenn koo jàppanteel benn yoon puus gendarme yi wala policier ñu ñëw kañang kañangee ko taxañ taxañee ko yóbbu dina mos indi benn révolte boo xam ni nañ ci doxal dëgg justice est là pour tout le monde procédure sax dafa war a mat bu dee wàllu médiation nag su tooñee nga porté ko plainte ah. nga loo doon autorité autorité alaaji waaw personne n'est au-dessus de la loi ah. loolu la gars yi di faral di wax di ah. loo doon kilifa kilifa président de la république ci boppam alaaji su ñu xaawee suturaam ak yooyu dañ naan. article quatre dal na sa kaw. kaw ndax loolu it lu wax la. voilà lu amul indi. Mhm. mais lu njiitum réew am doole am doole amul benn loi bu ko autorisé ne ko ku la neexul jàppal yóbbu. dëgg loolu dëgg. amul fenn waaw waxantuma la nag yow. ñu ne yow da nga bokk ci ñi nga xam ne yaay toogal askan wi ci pénc ndey réew ma ci assemblée nationale. Ah. dégg nga loolu. dëgg yàlla ah en tout cas de. yooyu day mën na mën na mën na indi coow de. parce que am na ñoo xam ne moom boo leen naree yóbbee noonu alaaji dañuy dee. yow boo nekkee dañuy dee. non dañuy dee mais duñ dem. duñ dem ils préfèrent ñu dóor leen ba lu fetal ñu dee. ca saa saa waaye duñ dee. waa ji il s'est laissé faire. déedéet alaaji li ñu xamoon bu njëkk. li ci yow du ci moom. gis nga li la bett aussi mën la de. liy dëgg mantulaay. liy dëgg mantulaay mooy way takk der yi. mun nga mun mun nga jàpp nit ku dëng ku juum. ma ñëw def intervention ñaan nga bàyyi ko waaye kantaan utiliser way takk der mu ñëw toroxal nit humilié ne sans enquête. bu ñu enquête. amul audition amul dara. Eh. parce que yow député nga rek sa tànk diis na. mais yaay kan laata ngay nekk député ba ki dem loo doonoon sa doom di sàcc ana député ak denc deux cent te député bi député il habitué des faits c' est pas la deux cent cinquante millions. am na yeneen itam yu ñu ko jàppaatoon ci xaalis ak yeneen ak yeneen. Hmm. il habitué des faits ah. ana député ak denc deux cent cinquante millions ci biir këram ba ay doomam di ko sàcc di ko def ñaari élève bi nga def c'est pas la première fois ñu tuddal ko somp tool nii de. góor wala jigéen. góor. ah bon. jàpp ko sax ci xaalis si bi mel nii. mu ñëw devise bu ëpp boo xam dafa énorme élève bi def fee. foog ñëw yaa nekk ci dëkk bi moom nit ñi. yaa ngi xuus rek. Ah, noppi naa sax. noppi mais il faut ma xam ne moomul nit ñi ah. dëkk bi dëkk bi ñu nekk wallahi république la. waa ji daal def ne. kenn doon la bokk. kenn doon na ko yow kenn moom non non jigéen parce que moom waxee sama wax de am fulla de góor day nekk góor nañ ci jéem a oto waaw ah, nañ ci dellu si waat sax ci xol suturaal rek yàlla nu yàlla jàppale député denc deux cent cinquante millions fu mu ko jëlee baax na salaire da koo koor gi nga xam ne dugg nañ ci yàlla dugg ci bisimilah rahmaani jeexal ci alhamdulilah rabbil aalamiin lépp luñ ci jaamu yàlla. waaw da ngaa wóor moytul mar yàlla yàlla yàlla nangu yàlla yàlla suturaal jàppale. teel na amiin